wajalilaayi maskani dëkk bu sell bi di tubaa doon dalal lancement journée de l'arbre di bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel garab ci biir Sénégal président Bassirou Diomaye Faye ànd ak Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr doon amal bu bi jotaay ay kilifa yu takkoo takkoo yëkkati seen kàddu delloo njukkal Touba ci kanam bi nga xam ne fes na ci lool gannaaw ba nga xamee ni kon indi nañu pépinière bu toll ci ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci ay plan alors Touba ci kanam moom euh, dañoo nekk ay jàmbaar pour plusieurs raisons d'abord dañoo jël en charge développement Touba dañoo def une action à la fois citoyenne boo xam ne au lieu ñu toog xaar état bi def lépp dañoo ñëw taxaw taxaw seen taxawaay ba muy taxaw bu rafet nekk taxawaay boo xam ne Sénégal yëpp dañ ci dañ leen waroon euh, euh, toppandoo ndax citoyen suñu organiser woo jàpp Euh, ci euh, vraiment activité dëkk bi sur le plan économique sur le plan social sur le plan euh, politique lépp loo xam ne xalif bëgg na ko ñu taxaw ci je crois que c'est un exemple rencontre woon naa leen il y a quelques mois waxoon naa aussi bëgg naa leen recevoir pour seet naka la le ministère du commerce et de l'industrie mën na jàppale jàppale jàpp jàppale leen ànd ak ñoom liggéey pour que Touba gën a mën a jëm kanam ñu gis nag ay taxawaay am solo ci Touba ci kanam naam sax dugulet ndax lu def la loolu tamit am nañ ci mbégte mu rëy rëy ndax dafa mel ne kon ñoom ñi ngi ci ndigal li ndax lépp ci ndigalalu Cheikh Mountakha Bachir la la Touba ci kanam doxe kon na taxawaay boobu taxawaayu murid yëpp lañ ko defal euh, ñi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di di soññ suñu bopp di soññ mboolem ko bëgg lu baax ci gën a jàpp jàppale Touba ci kanam ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey Serigne Touba mooy liggéey Sénégal la liggéey développement la liggéey dimbali dimbali maanaam askan bi la kon Touba ci kanam ngàcca ngalama ci yi nga xam ne am nañ ko tey jii ak yu weesu te am nañ yaakaar ne tamit incha allah yéen ñëw tamit taxawaay yen la nekk kon ñu ngi leen encouragé di leen félicité di leen ñaanal yàlla. tubaak ci kanam dafa bokk ci li nga xam ne moo nekk ci loi bi loi économie sociale solidaire bi nga xam ne tëgg nañ ko dafay jël en li ñuy wax volontariat boo demee ci euh, ci biir loi bi di nga gis ne bokk na ci condition yi tax ñu wax économie sociale solidaire mu am volontariat. beneen bi mooy am euh, njëriñ pour communauté bi donc boo jëlee ñaari point yooyu ci biir loi bi Touba ci kanam da nekk. moo tax sama collègue ministre de l' industrie wax na ko sàng euh, nga xam ne tey balaa ñu am économie dëgg-dëgg bi ñu soxla bay dëppoo ak développement à la base dañuy am koom gu sës maanaam koom gu jege. koom gu sës nag yaa ngi koy amee surtout ci mbooloo day joxe doole su ko defee développement communautaire bi Touba ci kanam di def nga xam am na ci biir part financement xeet yooyu day tax réew mi mën a jëm ci kanam euh, bu ñu jëlee li nga xam ne nag mooy garab garab ci boppam day yombal lu bëri wax nañ ko climat bi da koy gën a baaxal day yokk wér-gu-yaram euh, day tax meññeef ñu mën ko am lool yi dugg ci souveraineté alimentaire muy thème bi nga xam ne moom lañu def tey. rafet la bu baax nag taxaw taxawaay Touba ca kanam ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi Serigne Touba bi di ñu ko defal ñun murid yëpp di ko def muy liggéey bu am solo lii nag rawate ci muy li nga xam ne tey def nañ ko muy lancement journée nationale de reboisement muy wàllu jëmbati garab te ko ne xam na ne jëmbat garab dafa am solo lool ndax fii jamono toll ak changement climatique bi ñëpp xam nañ ne suñu environnement bi dafa yàqu te leen rek bokk li ko mën a defaraat mooy ñu fexe ba jëmbataati garab mu mel ne Touba ca kanam ñu ngi ci at yi yëpp ñu ngi ci xëy na dañu leen cee fekk si rek mu nekk jekk seen loxo mosuñu koo jële jële ci dëkk bi ci lépp loo xam ne lu jëm dëkk bi kanam dañuy ñaan rek suñu borom gën a yàggal seen taxawaay gën leen a dëgëral te sàmm leen te Serigne Touba nangu seenu liggéey. garab moom kenn amut fayam ndax émission d'oxygène et de vapeur d'eau la wax kon ngelaw li moo na koy jox moo ne jox ngelaw li moo ne jox lépp loo xam ne soxla nañ ko ci kaw suuf si te mooy tax li ñuy bay mën a aaru ndax mooy protéger environnement bi. kon garab kenn amul payam bu rafetlu nañ ko nag li ñuy gën a kii rek mooy li ma wax léegi rek nañ xam ne garab yi bindu jëmbatuñ ko rek euh, bàyyi ko noonu dañu bëgg ñu toppatoo ko garab ak niteyam da nga koy toppatoo di suuxat di jox muy naan di jox muy muy muy lekk lekk gi mooy lan mooy neefare yeeg euh, tos bi nga ciy def loolu mooy ak lekkam loolu nag bu ñu ko defee ci garab yi rek garab yi danañ mën a euh, taxaw te bu taxawee njariñul dëkk bi la njariñul ko commune bi la waaye njariñul waa dëkk bépp la kon bu indiwaatee garab yu mel nii tegaat ko fi <clears throat> ñu euh, président de la république ñëw war koo jëmbat ñi war koo liggéey ci Touba li ci gën mooy ñu tàmm ko ba nga xam ni axe yi nga xam ne def nañ ko yëpp ñu fexe ba axe yëpp ñu sàmm ko ba bu nëgëni déwee ne ko gis xam ne Touba kat euh, ville verte bi ñu doon wax am na ko rafet na. kilifay Touba ca kanam bokk ci ñooñee Serigne Mamor Mbacke mi nga xam ni mooy président bi ak Serigne Abdou Fatah Gueye fësal mbébatu Touba ca kanam ci wéyal liggéey bu nu mel jébbal ko Serigne Touba. ci bis boo xam ne euh, sentiment de fierté lañuy am ci liggéeyal Serigne Touba rawatina liggéeyal ko ci garab mooy boo xam ne tamit bis bu. doomu aadama mën a profité la soññi ku waat rawatina bokk ci Touba kanam rawatina ku yaakaar sëriñ bi soññi ku ci jamono bu nekk ngay dox jëm ci lu lay may ngërëmal suñu borom ndax euh, euh, sëñ bay li ñuy wax ñi nga xam ne ñoo tolloo génération mooy ñu farlu ci jëf-jëf yu baax yoo xam ne day jariñ àdduna ak àllaaxira genn garab boo ko jëmbatee ci kaw suuf mu sax ba màgg ba am njariñ na ki def loolu na ko wóor ne jariñ na juróom-ñetti milliards yi doomu aadama yi ci kaw suuf yëpp jariñ na mbindeef yi nga xam ne mëneesu leen a lim ci xeeti dundat yi nga xam ne ñooy jariñoo garab yëpp kon euh, te yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne ku jëmbat genn garab garab googee nit ku ca jariñu wala aw rab jariñu ca wala euh, lenn mbindeef jariñu ca rek ab sarax lay doon ñeel la kon mu nekk ab soññi bu rëy rëy boo xam ne am nañ ci mbégte li taxat tamit nag tey jii doonaat beneen journée de relance mooy boo nekkee ci mbir di ca yëngu di ca yëngu ba sëriñ bi jox la ndigal nga ànd cee gouvernement du Sénégal président de la république war fee ñëw tey war koo gën a jëmmal mu nekk loo xam ne au niveau national la waaye ñu di ko dara jaale Touba ngir taxawaayu Touba ca kanam ci garab loolu sentiment de fierté la mais ab soññee la kon ñu ngi sant bu baax di sant mboolem koo xam ne nag yaa ngi dugal sew ñaar téeméer fekk sëriñ Abibu ci pas-pas bi mu woote woon dugal saw ñaar téeméer ci Touba ca kanam ba lii mën a taxaw tey di ci beral cant tamit mooy soxna yi ndax it euh, euh, soxna yi fu Touba ca kanam ñooma bi ci toppaat tamit dama koy jeexale sëñ bay mooy jëmbat garab yomb na waaye taxawu ko ba mu màgg moo jafe taxawu ko ba mu màgg jooju nag moom la ñëpp war def yitte ndax bu ñu nee dañ fee war a indi limu garab yi ñu fi war a indi war a taxaw ba jëmbat ko na ñëpp def yitte te bu ñu demee ñaari at ñetti at ku fi jaar xam ne journée bii ñu defoon kat lii mooy résultat yi. ñuy wax ne daal lépp loo xam ne mooy matuwaay yi jël nañ ko ba mu mat sëkk euh, te jot nañu lu toll ci lu mu gàtt gàtt 27 kilomètres yoo xam ne jëmbat nañ ko fas yéene tamit jëmbat 28 bu nañu def fa junni garab mu nekk ci vingt mille garab te incha allah tàmbul nañu liggéey bi depuis gaaw bi passé di ci nekk ba nëgë ni président bu demee ñu dañuy continuer incha allah ba octobre ñu fas yéene daal jëmbat Tuubaa yëpp di woo nag taalibe yi di woo jullit yëpp ak Sénégal yëpp ñu gën a farlu ci jëmbat garab xam ne ci digal sëriñ bi képp koo xam ne yaa ngi ko yaa ngi dégg sunu kàddu ñoo ngi lay euh, sensibiliser di la ñaax ci jëmbat garab ndax garab lu am njëriñ la ci doomu aadama rawatina gi ñu tànn ren muy garabu mango am na meññet neex am na njariñ ci wàllu wér wàll yëpp ko daal la ko nit a fonk tey nag ñu bàyyi xel suuy bi ndax jëmba garab yomb na waaye topp ko ba màgg léeg mooy doon suñu problème ndax choix bi lu bari war na ko waral ndax tuubaa turu garab la ko da ci àjjana tey sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci garab mu ne képp ku jëmbat ab sarax la ci yow te buñu daan dem guerre danaan bu ngeen demee ci bu kenn dagg garab waaye daaw di wax bu kenn bu kenn rey nit kon garab lu am yitte la ñoo ngi leen ci woo baax a baax di bëcc ci Touba Ca Kanam TV dina def ngeen yokk ba nga xam ne fu ngeen bëgg ci wàllu média bi ngeen di liggéeyee sant nañu baax. ñu fàttali ne kon te mu ren bi mu nekkoon ci rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique di njëriñ njëmbatu garab ci réew mi ak ci koom-koomam waaye mango it moo nekkoon arbre parrain bi. مثلك ما بجاي خير ما نبات